voilà mbokku téléspectateurs yi ñi nga am mbégte contentement di àddu ngeen di teewlu ñu ngi fi nga xamante ne moom rëbës li ñu fi tax teew nag moom mooy open press ki nga xamante moom mooy euh, double moteur xam ngeen ne ci dimanche bi ñu jëm mu ngi fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Peugeot waaye balaa ñu dugg carrément ci open press yi dama bëgg ñu waxtaanee ak sama consultant Mame li nga xamante ne moom mooy euh, drapeau chef de l'État bi nga xamante ne am na ci ay bés yi ñu génn buñ ci jógee daal di ñëw ci combat yi nga xamante ne ci week-end bi lañ jëm salaamaaleykum coach euh, auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rabbil aalamiin maa ngi nuyu waa Vox Arena di leen siyaar di siyaar Cheikh di siyaar DG di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu suma waa famille comme d'habitude Cheikh suma mag Laay Jóob suma rakk Malick sumay xarit ñoom ñëpp maa leen nuyu yéen ñëpp di leen siyaar ak sama sœur Khady ci Allemagne. ñu jógee ci drapeau chef de l'État alors yow yaa fa nekkoon alors nan nga gisee drapeau chef de l'État bi. non drapeau mbër yi aussi wane nañ seen bopp wane nañ seen xarañte parce que nga bëre compétition mel noonu amul benn recours loolu c'est c'est c'est c'est jamais fii parce que danaan bëri ay ay ay problème daanu naa daanu naa mais ren dañoo bëri sans recours euh, équipe yi ñëw nañ am na région yoo xam ne comme lu mel ne Kédougou comme lu mel ne maatam comme lu mel ne saint ren wane nañ seen bopp ñu jara sóoraale lañ Dakar lan moo waral seen perte euh, pour yow. non Dakar équipe bi ñu classé. waaw démérité waaw ndax boo jëlee. daaw drapeau chef de ci Kolda. ren nga ñëw yegg ba final. démérité woo mais équipe bi ñu war a indi. dañ ko war a xoolaat. am nañ pénalité ci 76 kilos bi. am nañ pénalité ci 100 kilos yi. parce que bu ma yóbbu ay champion yu mel ne Ngel Dieng nekk fi. Ibou Senghor nekk fi yaa ngi dégg euh, Serigne Ndiaye bu Faas nekk fi booy bi ñu yóbbu muy Ababacar Ndour matul 120 kilo donc amoon na abcès aussi amoon na benn taab bu mag ci genoom yaa ngi degg lool aussi difficulté yooyu nga bëgg koo bëre waale te ñi ngay bëreel man di bëre mel na général Malika mel na Libidor bu Grand Yoff booy boobu dëgg dëgg neex yàlla mënu ci woon a génn ci ci ci milieu boobu. sa sa sa sa analyse lan la d'une manière générale jaar na yoon wala jaarul yoon d'une euh, sélection Dakar bi des na parce que nee naa la 66 kilos boo ko xoolee dafa gaaw a sonn balaa compétition ba yàgg am na nu muy demee moom mu gaaw a tëdd gaaw a bàyyi. 76 kilos bi 76 kilos bi mooy Babacar Ndour Babacar Sarr donc ci loolu Ababacar Ndour aussi daf ñoo pénaliser mais li ñuy wax rek. am na ay champion yu nekk fi Dakar région bu mel na Dakar waroon nañoo toog penco xool ñu ñuy yóbbu ci drapeau chef de l'État ba nga xam ne au moins fii ñu toll demi-finale waroon nañoo jël finale bi doo ko indi Dakar. d'accord mm. alors coach sa poulet ki nga xamante ne moom mooy euh, euh, Franc. waaw nga xamante ne ñu ngi leen doon xaar mais finalement dafa désister lu tax. non xam nga Franc mënu woon ñëw ci com ci compétition bi parce que dafa am contrat ak nit. waaw waxoon naa leen ko ñoom mais nanguñ ma woon déglu parce que il fa que moom mu wàññi poids am pour mën a bokk ci compétition bi ba pare boo wàññee sa poids da ngay mel ni xott. boo ko bëggoon tabuwaat fii ak le 27 juillet loolu du mën a nekk c' est pas possible c' est pas possible waaw. alors ñuy féliciter organisateurs yi. di féliciter waa CNG bu baax a baax a baax ci li nga xamante ne moom mooy drapeau chef de l' état ñu jëm rek ci weekend bi nga xamante ne si la ñu jëm njarndeem am na weekend bi nag comme ni ñu koy waxee. ay njarndeem yu nekk bi tal parce que boo xoolee samedi beeg bu gars yi mandiwul lamb dootuñu mandi lamb dootuñu ko mandi ilaa yow mi diine parce que combat yi neex la ay combat jànq la ay combat xale la. voilà mbokk yi ñu wax ni samedi du yomb ndax xam ngeen ni samedi ki nga xamante ne mooy Coly Faye 2 war na laale ki nga xamante ne mooy Nandi Fall combat boobu nga xamante ne sàmm ñu foo non ñaari combat la yu neex parce que Coly Faye daa war a calculer ni muy xeexe xeex aussi da koy teg ci yoon ki ngay bëreel champion la ndaanaan la. bokku leen jaar-jaar ndax Coly Faye ku ko xam-xam ne ndaanaan la ku ko xam-xam ne yaram bi mànd na bëre defoon na erreur nag ba jël soq parce que boo xoolee mook soq xool différence de taille bi nga xam ne bokkuñu yaa ngi dégg Coly Faye am na manin am na sañ-sañ am na xadar mais war naa xool ni muy xeexee rek la ni muy xeexee tey teg xeex bi ci yoon waaw. bu ñu jógee ci loolu ñu ngi jëm ci Soundiata ak Alioune Mané Soundiata Alioune Mané noo gisee. ndax xam nga Sunjata moom moo ubbi arène nationale daan Pape Sène premier combat mu daan Pape Sène Aliou maa na gëj naa bëree am na recul ci combat léegi nag kii da koy gën a ëpp expérience kii gën koo nekk xale mais nee naa la da nit da koy jiitu ci làmb kii nekk ku ko jiitu kii di doog a dugg kuy ubbi buntu moo may jaaxal. moo lay war cee boole Abou Ndiassé. waaw Tafa Gueye xam nga c'était un féroce de la am technique am xam-xam koo yaakaar ne mënu koo daan mën na koo ndax ba daan ko. mën na mën na koo ndax mais xale bu yor doole la léegi nag combat boobu à suivre la. bu ñu ci loolu mbokk yi ñu ngi jëm dimanche si la double moteur ak ki nga xamante ne moom mooy Kogal la war a bëre arène nationale combat boobu Assane Ndiaye sa kenn xamul lan la. nee naa la combat yi parce que boo xoolee double moteur bëri na ak Zia bu nekk Mor Fadam. double moteur bëri naag naaru sokaas damay gàttal rek double moteur bëri naag euh, maam Balla bu Pikine maam Balla daan double moteur moo daan naaru sokaas ñëw bëgg a prouvé waat maam Balla freiné ko tey muy jëlaat un ruse de muy Feugeuleu Feugeuleu ñi mu bëree la bëri Feugeuleu ñi mu bëreel bëri bëri naag Bruce Lee bu faas bëri naag Garga Mbossé bëri na ak Ama Baldé bëri na ak Birahim Dëng. bés ko. la. ñeenti vitesses la yoon. kon kon combat ci yow. non a dugg la ak xale bu nekk ci yoon bu combat bi yàggee arrangé double moteur. bu combat bi gaawee arrangé fa. arrangé fa gën a jógee ci loolu aussi ci même dimanche bi mu ngi jëm Iba Mar euh, sëñ Modou Niang moo ñu ko woo Ndiaye Tine. Ndiaye Tine mi ngi wane boppam ndax bu ne doomi Bawol la rek am san sant ci ni muy bëree combat yi métti lay am combat yi métti combat yi naqari te day yàgg mais Ndiaye Tine na ko nit ñi may xel ndax champion la. voilà mbokk loolu la indi loolu Euh, ñu woon fi nga xamante ne moom mooy open press bi nga xamante ne moom mooy euh, double moteur gis ngeen ni commencé nañ ko ni ko fi defee bu soobee yàlla suba moom lañ ko fas yéenee def fi nga xamante ne moom mooy euh, ci fëgala alors nan nga gisee ni gars yi di génnee di waajal double moteur ku ko xam-xam ne waa bu ñu doo public la ku ko xam-xam ne xandaalu géeg rëbës gi yëpp a ngi ci gannaawam muy xale bu nekk ci yoonam combat bi passé bi muy bëreeg naaru sokaas dama génnoon ci journal sur bu wax leen ne bi ma ko waxee ñu bari dañ ne ma tegal foofu sa loxo pourquoi ma wax loolu waaye boo xamee lamb nekk nit ku mand ci lamb am na loo xam ne boo ko gisee du la jaaxal. effectivement alors ngay wax Assane Ndiaye euh, ci événement bi nga xamante ne moom la tëgg tuddee ko Aïda Mbodj aussi parce que euh, boobu ba léegi mu ngi tuddee drapeau Aïda Mbodj ëpp na ay ay euh, man fukki at bàyyi ko ba tey. Assane amateur lamb la boo nekkee amateur lamb bis booy kare lamb say lamb day neex. lamb yi jànq lay kare mu bëgg lamb li muy mu koy teg ci yoon Double Moteur ak Feugeleu nee naa la expérience ak senis bu combat bi yàggee arrangé Double bu combat bi gaawee arrangé Feugeleu ndax Feugeleu quatre vitesses la yor da koy accéléré mu jeex. voilà mbokk yi gis ngeen li nga xamante ne euh, moom mooy émission bi nga xamante ne moom lañ leen di defal chaque semaine tey nag nekk ñu Gusto Italia fii la ñu tuxu si fii si Rebeuss ndax événement bu rëy bi ko waral mooy feesu euh, open press bi nga xamante ne moom mooy euh, double moteur bu subaa is aussi xaar lañu bi nga xamante ne moom mooy bu fëgg la alors mbokk téléspectateurs yi ma bàyyi ki nga xamante ne moom mooy coach Mame Less mu tàggoo rek. ñoo ngi ci biir Rebeuss ñoo ngi ci comptoir xol Rebeuss open press bi dana neex bu soobee yàlla. open press euh, double moteur ku ko xam ba waa xandaalu génn waa rëbës génn kon kon kon open press bi dina neex jërëjëf waaw jërëjëf voilà ñuy remercier aussi sunu partenaires yi donte ni nekk ñu fa moom mooy waa Gusto Italia nekk foofu ca Almadi nekk ci wàllu station Shell muy restaurant boo xamante ne bu ama am solo la alors mbokk li lañ leen di indiloon ci semaine bi di leen jox di daje très bientôt beneen numéro peace